ndaysaan grand combat ba ngongu yàgg maar kooku ngay gis mooy capitaine dina mook Cheikh Super Diamono war a bëre waaye yàgg maar lu ñaaw am na fi lu bona bona bona bon lu doy waar ay xale kenn xamul lan mooy seen intention bu sa mbër daanee ngay damm ay sees ñu daan sa mbër ngay damm ay sees yàgg maar lii ci lu mu bokk ndax lii mën naa taxam réew a avancé dama réew damaa xamadi lu ma neex laay wax lu ma neex laay def a baax na bilaay bu neexee yàlla lu ko neex mu dal la baax na Cheikh Super Diamono ñu won ginnaaw ngemb lu mu ngemboo boo xoolee comme saaru ngemb soose yooyu la capitaine dinaa ngeen jàkkaar lool tey la 11 avril di dimanche arène nationale Serigne Modou Niang borom mu ñaa ku yaru lool joxe cër bi kon defe naa ne bésam ku ci ñëw war nga ànd ak ab yar waaye ñu daan sa mbër ngay dami sees di sànni wala sa mbër daan ngay dami sees di sànni di def li la neex ne dama réew baax na bésa ngi ñëw ci bési billaay kuy jaay ak réewande boo dajee ak réew daa xam ne réew jigul ku ne mag sax réew jigu ko wallaay la si ab yar la yàlla bëgg ñu am ko joxe cër ami teggin waaye lu ma neex wax lu ma neex def lu ko neex mu dal la ñu ngay lewaatoo capitaine dinaa Cheikh Super Diamono capitaine dinaa ma fàttali leen ne Yoff la jóge Malick ñaa ko andi ak Mod Dia Yoff léegi benn écurie la amatul Yoff mbooloo ak beneen Yoff benn écurie fa am Cheikh Super Diamono guy gee ko andi ak ñoom mbayti numéro 2 seen naa léegi Maguette Seck Boy Niang 2 bu Guédiawaye conseil ko ñu ngi lewaatoo dara xewagul capitaine sànni na góos capitaine sànni na góos Cheikh Super jamono capitaine dina Cheikh Super jamono école de lutte Mor la ware waaw fa la jóge ca Guédiawaye jàppantey loxo taw na weer jël ko kor eh jël na ko mu bañ capitaine ah seex seex foo jëm seex a ngay daw seex mu ngay daw seex a ngay daw seex daanu na de seex mbaa daanu parce que arbitre attewul de seex daan na ko de ah way capitaine daan na ko combat bi jeexul ah way na ko parce que xamala moo tax arbitre bi attewul seex signalé naan day taxaw arbitre se la met di terrain xoolal seex daa waaru seex super jamono capitaine dina ngongu waa yoofa ngongu topp ko gis nga Modou Dia di ko andi noonu ñoom Modou koy andi noonu xool Cheikh super jamono jëlal ma Cheikh yàgg Cheikh daa waaru Cheikh arbitre sa di teere daan nañ la bu yàgg doo àtte sa bopp xoolal xoolal xoolaatal Cheikh lu ko dal dafa niin am may génn Cheikh Cheikh la moo la dara dafa nii waaw d'accord may jël Cheikh lu la Cheikh Cheikh do dégg dafa song mu niin ma appel arbitre bi ba arbitre bi sifflé yaa ngi dégg may arrière si géew bi arbitre bi sifflé na ba pare waaw bien sûr dafa niin bat mais mais non bëre bëre yaakaar naa ne yor na écrit yor ay mbër tey gis nga image boo xam ne bu doy waar la Père Max. réewande. réewande. rek la amul leneen Babacar dañ ñu daan boot. waaw ceesaati jaamur yi. tey ñu am suñu yëfi bopp di ko yàqal suñu bopp loolu kay réewande la parce que li li confirmé ne réewande la dama gis mbër mu daan daan de say supporter di sànni di yàq mais réewande weesuwul lool dama ne na ay sanction kun ci jàpp nañ la teg ci yoon bu laajee ñu daan écrit bi wala école de lutte sax nañ ko def. bu laajee ay écrit ba sax. mooy daan rek ba léegi ba léegi weddi woo ma daan rek sanction bu mu laaj nañ ko def lii image bu ñaaw la ñu ne nañ ko daaj ñu toog ci xeer yi mel ni daal dañu mbëri daal ñoom yiwuñu ñu ne nañ civilisé ñu lank maanaam mbubb mi ñu solal ñu ñu bëggul ñu nangu koo sol lii dafa ñaaw lii reewande la waaw mais démb dama démb dafa dafa am lu ma lu ma dégg dama ko sax dégg muy ab ñaxtu par rapport ak mbër yi ñuy dagg mu mel ni dagg ba ba tey dafay des de. waaw métti na de la woon a fi ne de dagg million mais bu njëkk bi sax mën nañoo ñaxtu mais yeneen yi bu mbëri bëree nañu woyofal mais gis nañ la kaat mbëri bëriwuñ ba amateur yi mer mais yeneen yi di ñëw bu mbëri bëree nañu woyofal wàññi yenn sanction yi. kon lak ak ëmb lañ leen dagg daa bëri xanaa. non bëri na trop kii dagg nañ ko deux millions six cent dix mille kii deux millions sept cent dix cent dix mille. Euh, la de guerre. Diène Kairé Diène Kairé deux million euh, deux cent soixante dix mille. deux cent soixante dix mi ngi bëgg a bëri nag. kon daa mel ni kon père daa mel ni est ce que la woon woon ni nag. ci mel ni ah xeeñagul neex daal. xeeñagul neex xeeñagul neex. yow loolu loo ban appel ngay lancé ñi. su mbër yi bëree. waaw nañ ëpp seen loxo. su amateurs yi kontaanee garaawul boo gisee sax nit ñi coowuñ te gis nañ ne keroog lamb ji amateurs yi kenn kontaanul mais bu mbër yi joxee. nañ seetaat yenn règlement yi. mais yow dagg boobu rafetlu woo ko de xanaa kon. waa non dama yërëm mbëri rek mais keroog moom gis nañ ne mbëri bëre wuñu mais buñ ko defoon ci combat boo xam ne mbëri dañoo bëre ñu dagg leen lii da dégg média yi ñëpp wax ci. kontaan ci yow Babacar jërëjëf. jërëjëf arène nationale lañ nekkoon tey Cheikh Super Diamono capitaine dinaa daan na ko loolu mooy li fi am sëñ Modou Niang moo fi woote woon borom mu ñaa production moom nag yaakaar naa ne am na yar boo xam ne ci moom moom sëñ Modou yaakaar naa ku ñëw ci bésam war nga andi yar boobu waaye liñ fi gis tey du ab yar du ay teggin te du sutura tey itam xale gis nga bu bëggee nekk magum ëllëg mu ñuy roy daa war a am ab yar ami teggin joxe cër waaye yàgg maar sa mbër daan ngay dami sees ñu daan sa mbër ngay dami sees arène nationale ñoo ko moom ñun lañ ko tabaxal waaye kaay leen toog ci ay sees seetaan làmb xanaa moo gën a neex kaay toog ci ay dër mais booy yi daal ñoom nanañ nañ loolu du fi amee dañuy yàq rek réew mi nag autorités yi ñoo ci war a wax ak yàq moom dañ cee war a wax ndax damaa réew moom dañ laa war a def ni ñuy def ku réew rek jubbanti la ba nga jub parce que nag li olof Njaay di wax rek réewande moom lu mu la mayul lu mu la xañul du la ko may te li ñu xamul nag mooy koo fi jàpp ne daa yar wala mu joxe cër bés boo ko tooñee mën na laa wan jikko joo xam ne su koroogee di nga ci bëgg a génn mu tëla kon nag nañu ànd ak ab yar félicitation capitaine dina di courage Cheikh super jamono demal liggéeyaati Cheikh nag da ngaa juum pour man ndax li la juum loo mooy comme na nga sa adversaire daa niin yow loolu du yaa koy wax arbitre koy wax te daf leen a làmb ba pare doog a soufflé ngeen bëre kon bu nii ne yow booy génn asimel nga génn ba jeex waaye nga génn taxawaat mu appel la nga taxaw mu song la daan la làmb ja jeex kon nag arbitre c'est le maître du wax ki niin ak ki diw mais du adversaire bee koy signalé kon yàgg mar arbitre c'est le maître du nañ ci bàyyi xel sport daa am ay loi jéem a xam règle yi daf lay dimbali ba beneen yoon ci Equivox TV du mën a ñàkk